bokki jullit yi gannaaw ba ñu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yenenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi balu xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nañu yàlla boole ak bokki jullit yépp lenn ci ay biir yoo xam day gaar jamono bokk yi àdduna lépp suñu boroom daf ci jàngale jàngale des na ko defal aw nit di leen wax ñuy dégg waaye des na jàngal nit di ko wan muy gis ku ne xam na ne ci doxinu jamono jant bi ak weer yi ak bis yi doy na ci sëkk am njàng ndax lu waay gàtt-gàtt xam-xam xam na ne jant bi moom day fenk ak di so fi muy fenkee fi muy sooy moom la ñuy tudde bëccëg wax yoo dem ci àdduna bi am nañu amal nañ ko aw tur waaye day mel na day romb noonu rek duñ ci jàng dara moo ne weer yi day ñëw ñu naan lañu ko séentu mu teru buy soog a fekk buy soog a day teru di dem ba mat sëkk fukki guddeeg yent tàmbaliwaat di wàññiku ñu naan weer waat feq na walla feq feq ak ak suux feq ak suux yooyu yëpp it kese la bu ñu jëlee lu mel ne jant bi moom buy soog a génne ni muy toll lay toll ba ba muy jeex mën na gën a tàngaram mën na gën a leer it waaye weer yi moom doy na sëkk am njàng ci dundu doomu aadama noonu muy tuute ñu di ko wanante mu sew ut ba mu yàgg kenn dutu ko wan sama morom mu ne dàng ci kaw di leeral sax yenn barab yi nga xam ne yenn warab yi nga xam ne nit gi àggagu ca àggagu fa ba mu yàgg mu tàmbale waataaw ba wàññi ko waat ba jeex tàkk bañ naan xëy na ba naan bañ naan bis sàngam lañ koy séentu foofu nag dafa mel ne dundug nit it foofu la yomb da lool ci jàngale ko wane bokk yi nit ki su soog a ñëw ñun ñëpp jaar nañ ci xam nañ na muy demee du man dara foo ko teg yàlla fu mën a nekk rek waaye foo ko teg mënu fa jële bopp léeg-léeg nag mën na yëg aw metit mu yëg lu sa kaw tàkku ñu dem seeti ba xam lu lu ko tax di tàkku li muy tekk rek mooy ak tëli mënul dara jéebaa ne la man wala reeteen lu mu def dañ ko ko defal ba mu yàgg ay woy juram xëy xëy buñ ko dijee mu mën a dox tëb naa lu bari ku ne xam na ne bis bi muy jëkk fekke fenktal jant la muy dunde kenn du ko ko wax lu mu koy def dañ ko koy jox rek yàlla fa daal ak kàttanam dañ ko koy jax jox rek mu daal di muucu tàmme ko ca nag boo ko joxee baaraam sax mu def mu defee ne moom ba ba muy xam ne du moom su muuco muuco wax dara dikkut mu xam ne du moom ba yàgg mu dujj ba yàgg muy raam moom yàgg mu jóg taxaw ak i tànkam ba yàgg muy dox di daam ba yàgg muy demal boppam ba yàgg muy tëb di daw ak ak ak ak mën naa dem sax ba yëkkati mbaggam mu toll na ko neex mu ne góoroo góor maa man man sëkk nga xam ne mënee sutu koo nax mënee sutu koo jooyloo mënee sutu koo nax ndax xel mi mat na sëkk ne sutu koo jooyloo ndax am na kàttan ku mu ko sëqal mën na la koo waaye nag su àggee foofu su am xelam dalee mu defee ni fa lay sax mën naa jiw na ko xool ci weer wi rek ana fi muy jëmaat fam tàmbale woon lay jëmaat toog ba yàgg euh, mu naan tànkam yi day ruux wala digg gannaawam wala sax duutu soxla lekk bu bari wala duutu soxla yenn yenn lekk jam daan soxla mu njëkk diggante bi jëli naa fi lu bari jëli naa fi lu bari lu mu fi wut ba dajale lii xeebe na ko ñam ko doon wutal loolu defe ne moo leen ëppum xel lii mu ngi cay reetaan ñoo xam ne am nay jamono daanañ ko dimbale diggante bu gàtt la bokk ci lay dox tuuti tàmbaliwaat lu mu man lañ ko ko mënal mu delluwaat ca ndaw gam doll woon ni weer di xëy rek ñu di ko wanante danay taxaw fu kawe tënk bi leer nañ nga soog ne ma nga ne ñi xaw a neex gët moom jëru jëru ko waaye ñenn ñi xaw ñu war leen ma nga ne ma nga ca doon niir wala ñu doon ko gis kon boog diggante bi nit di ma a dara li gën a sakkan ci moom mu gaaw njëkkanteeg adduna rek bala moo delluwaat ci ak ndaw te jamono bi muy doon gone doon ndaw ñépp daañu mën a jëflanteeg moom ndax jël ko yóbbu ko fu la neex ku ne mën na ko lu néew lu nit néew néew doole mën na koo fam waaye dana àgg foofu day daanaka day xaw a lëjëm nit ñi sax mooy bu delluwaatee ci ak ndaw te doon mag moo tax ak man lu néew la moo tax diggante boobu nga xam ne am na ci kattan mën a tëb di dal ak ak suñu borom waxoon naa ko moom daa déggut rek yàlla newoon na newoon na ko boole ko ko moom ak i moroomam waalamu ilam ya haza wa amsalak annama amwalukum wa awlaadukum fitna alal ji di wut di ko dajale ba di leen tax tax di tëbaka dal ak koo ci wax mu ne nu may def njaboot bi njaboot gee ma tax di wut boo mu su mu dugal la ci fitna de du tàmbalee fii jëm allah yàlla mu sell mu sell daan ne tee nga koo sànni tee ngaa sànni alal ji te wan gannaaw njaboot bi te dëgg mal yàlla ndax la ne fa yàlla kat moo gën fuuf gënante sax nekku fa waaye foofu la nit mën a dégg waalamu annama amwalukum wa awlaadukum fitnatun wa anna allaha indahu ajrun azim am nañu nag dégg nañ ko ñi dégg njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi waxoon ne ku ne ci kaw suuf di dund na ko jàppe keroog suba keroog suba keroog suba lu mu dëll dëll ak lu mu sedd sedd soo gaawut def ci suba bi li nga war a def rek dem ci leneen kerke moom dala fay bàyyi dem yoonam nga ne ci naan soo mënta xam kër suba walla xew eh, karam nga ak dem nga muy demit soo dee tukkikatu bëccëg mën ngaa xam ñu ndox ñu ndox mooy ndox mi ngay séen ci kaw tali bi bay séen sax takk nderu garab yi waaye ku ko jàppee am ndox juum ndax boo àggee fa mu taawoon doo ko fekk dara yonent bi jàngale na ko ci gàtt bu faatu bu dee bu mu romb mu neewi ba toll noo xam ne mus naa toll ba muy dund moo tax nga xam ne suñu borom moo fonk nit moo fonk nit foofu day naa yam dana gis gàtt bu bu dee toll noo xam ne ñaari fan ñett mu toll noo xam ne nii mosu ko du ko mas a toll man mu ne teg taxaw gaa yi taxaw mu ne leen waaw gàtt bi de xanaa seeni borom amatuñ ci soxla ñu ne ko amatuñ ci soxla kay moo tax ñu sànni ko daa dee mënatuñ ko lekk ndax ab du lekk métti soow meew moom leen daan joxe mënatu ko def ndax dee meew ak deret ñoo jaxasoo leen mu ne leen gàtt bi de li muy ñàkk ñàkk maanaam ak li ko waa këram di doy de lépp ni yàlla ñàkkale solo addunaa ko foofu nag ba ko gaa yi dégg ñoom dañoo daal di fëkk bàyyi alal akub njaboot wuti la yàlla yore mu del ko misaal ci ne leen keroog bëccëg ñii tukki bëccëg xam nañ ko xam nañ ne dal dong la nangu dallu naaj wu tàng la ci yoon bi jullit subar jot nga agsi fa waaj fa julli fa tisbaar wéyal saw yoon nee na ku jàppe ëdd lu dul ker googu it mën ngaa mën nga caa juum wala boog nga jàppe ko daal ñi nga xam ne dañuy jóge dëkk dëkk di romb Tuubaa ñu jóge dëkk dëkk di romb Tuubaa te dëkk jaar ci lampi Tuubaa yi la wàññi tabaxam yi benn bu ci nekk di société moroomam bu mu ko tax a taxaw ndax taxu ko war a ne wëyee aw yoonam su fekkee la mu war mën naa wax dafay kon daal liñ ciy dégg mooy yàlla dafa ñëw ci kaw suuf fekk am fu jóge woon fi jóge woon mooy bakkaar yu bari moo tax ñu di ko dox yooyu di ko biiw ba mu yuuxu ca kaw bëgg ku ko wan fi may demee di ko wutali far yeew xaw ci lu mujj sëñ bu mag bi ne ko daa gàllankoor ay rowu yu waroon a dem jaaram ci yàlla dajee yërmande suñu borom mu gàllankoor leen ñooñu ñu jël seen ak ci kon boobu bopp yi ku ko mënoon kenn dalay bañ ndax ku ne xam ne bopp ku ko xool ba xam ne yow mii doon ku ñu war a topp nee na waruñu war a topp bañal loo mën su fekkee mënees la nekk topp ndax aada ji fi fekk na nga fexe ba teg sa tànk ci yoon ba ku dem nga dem ku dimul nga dem ni ko sëñ bi sëñ Tuubaa wala sëñ Muntaxa kon nañ suñu way daw la ndax fukki fan yi weesu ci koor yi wane nañ jamono ji taxawut bëgg démb lañ koy si bi sàngam lañ koy tàmbali ñu ne fukki fa dem na xaar tàmbali na leen fukki fan yi ci digg bi te bu jeexee cay topp ma cay topp kon boog la wéy moom fukki fan yi kooru ren lu ca way def fan bi nga ko ku ne nag mën na natt boppam ci lu mu ci war a def ci def ko lu mu ci war a def ci ko mën na ko xam mu gaaw fukki fan yi tàmbaliwaat moom mu fexe ba lu ko rawante bee mu dabaax te ku sàgganoon jàpp ne ñi faatu ci fukki fan yi koor bi moo cay topp moom mu fexe ba naka doon ci fukk ba ne dañ ko ci des yàlla na yàlla dafa dégg ak topp te mu doon seytaan nekk ba tax yàlla na yàlla na yàlla na